ay at ba mbuxum ga ak tappale yi nga xam ne moo nekkoon ci réew mi ak ñi doon jël alalu réew mi di ko def nu mu leen neexee jeexal. Mm-hmm. ngeen àndoon ak ñoom bu ñu goree woon du ñu wax xam nga lu tax du wax. moomoo mm-hmm. ñaata bëccëg la ñu am fii dëkk bi kenn génnul wuti sax loo ndekkee. Mm-hmm. kenn mënul génn dem marché duggi ngir lan dëkk bu fees dell ak ay police ak i gendarmerie rek lakk la mo rek lakk jamono jooju ñii ngay wax ne ñoo gerew booba ñoom itam ñi ngi def benn say ba dëgër nekk ci wetu Macky Sall ne ko koo mën a rey rey ko koo mën a jàpp jàppal koo mën a tëj tëjal ba tëjal seen njiit sax. Mhm. loolu jërul soriwaat jàppal mhm. seen i njiit muy Ousmane Sonko jàppal seen i njiit muy jom ay Faye nañ dem ci kaso bi ñenn ñi taxaw ne rey leen Sonko ñii na rey leen jom ay Faye nii lañ ko daan waxee. ci mhm. tele bi image yi gis nañ ko. ñu naan ku bokk ci Pastef na dem ci kaso bi ku ngeen ci man a rey rey leen ko ñii ñu rey leen ci mbedd mi. Mhm. cinquante personnes yoo xam ne leer na Sénégalais yi ni ñu dayee ci mbedd mi dossiers yi ñu koy laaj ba léegi ñoom corrompu yu ñooñu nga xam ne tey ci deretu réew mi lañ doon dund ñu xëy ne dañuy gerew ndax daal lañ doon am amatuñu ko. Mhm. loolu daa mënut a nekk ndax ñi fi nekkoon ñu jël alal réew mi geroon leen. Mhm. mars 2021 ak lu ko jiitu ba léegi dama la waxoon ne la presse écrite bii nga xam ne ñoo gerew démb. ci masaan xëy. bu defee tiitaram da ngay tiit. la gën a ñaaw moom lay jël tiitaree ko Ousmane ko mhm. la gën a ñaaw moom lay jël adresse ko Bassirou Diomaye Faye ak képp ku bokk ci Pastef. Mhm. jërut sori wax nañ la rebelle nga lu ko gën a ñaaw wax nañ la euh, terroriste nga. Mhm. lan mooy terroriste terroriste kay mooy ku toog ci suñu réew mi di lekk suñu alal. wax nañ ne force occulte Antoine Diome nu génn fii di ko wax. Basirou Gueye mi nekkoon procureur bi taxaw di ko wax suba ak ngoon. ay ñoom Maham jàlloo koo mën a gis ma ngay def conférence de presse ay terroristes ay force occultes ay rebelles lañ ay ay Ibadu Rahman lañ ay nangam lañ dañuy nangam kaddu gu ñaaw goo mas a xalaat. Mhm. presse bi nañ génne war journaux yi rek e daaw ci heure bii rek boo ko wane ba mars 2021 ba léegi ñu tiitaree ko ñu mën naa cee aneer ba ci imam Alioune Badara Ndaw mhm. presse bi yépp mën naa ne bokk na ci ñi ko rey la faat imam Alioune Badara Ndaw maanaam ba tax mu dellu ci suñu borom mhm. ñii doon gerew démb ci lañ bokk. ndax ñoom ñëpp dañoo tiitre woon ne imam Alioune Badara Ndao terroriste la daa yore ngànnaay di xeex. Hmm. feni kese ñii bu leen imam baalut bu ñu dee ci digg na ma lañ jëm te yemuñ ci imam boobu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ay imaam yu ñu jàpp ay ustaas yu ñu jàpp ay sëriñ daara yu ñu jàpp. Hmm. tuumaal la ba yàlla dogal nga ñu jàpp la yóbbu la kaso ba nga feebaree fa ba ñu yóbbu la kaso ba nga génn feebar sa feebar jàpp la ba nga génn àdduna ñaleen leen faat lañ bokk tey. cinquante sénégalais yi nga xam ne faatu nañ ci liñ xam ñun nga xam ne ëpp na ko. ñi geraw démb ñoo leen rey rey gi ñu leen rey mooy keroog bi ñuy manifester wu pour bëgg a jot suñu liberté. ñoom dañoo toog euh, ci dëkk bi fayuñu seen seen fiscalité yi euh, ay ati yàlla. sénégalais yi ay junni junni doomu aadama ci biir réew mi di génn dugg ci gaal gi dem yàlla dogal ñu faatu. Mm-hmm. am ñu nekk ci kaso yi boo demee Mauritanie nga dem Maroc foo mun di dem kaso yaa ngi fees dell ak ay sénégalais. Mm-hmm. ci jamono boobu alal ji ñu tëdd buñ ko fayoon impo bu boobaa ba dëkk bi mën a dund boo xëyee mën a ndékki mën a añ mën a reer loo soxla nga mën koo am te doo génn réew mi booba alal jooju presse bii nga xam ne ñoom ñoo doon grève démb ñoo tëdd ci alal jooju ñu ne duñ ko fay ñu lëkkaloog Macky Sall Macky Sall di jàpp di tëj di rey ñoom ñuy xëy di ñu sosal di ñu fenal ba yàlla dogal li jeex moo tax la ñi dee ñi manifester ñi ñi doon geraw démb ñoo leen rey. Mhm. ak imam Alioune Badara Ndao seen i kàddu moo leen faat ak seen xalima. Mhm. ndax am na kaddu goo xam ne rey na nit moomoo. as gor dana dëkk cib dëkk. nga teg ko tuuma lii mhm. lislaam a koy jàngale dana ab dëkk da fa teg tuuma kilifa. nee na kaddu gi nga yëkkati sa rajo ak sa télé teg ko ko. moo koy génnee àdduna ndax am na loo xam ne gor mënu ko fekkee. du dóor bal. boobu mooy bi gën a gën a fës. mais bi gën a gaaw rey ni rek mooy tuumaal as gor ci am mhm. pénc day daal di faatu léegi ndax am na loo xam ne gor du ko dundee ñi doon manifester démb tey loolu lañ bindoon ci seen journaux yi wax ko ci seen rajo ak seen télé yi rey imam Alioune Badara Ndao rey ñu baree bari gor yi ba ñu génn àdduna ak suñu xale yi nga xam ne ñoo faatu ci géej gi. Mhm. ñu lank ne du ñu fay. moomoo ñàkk gi ñàkkoon a fay ne duñ ko def. Mhm. teg ci ki fi nekkoon njiitu réew di jëlaale alalu réew mi di tibb di leen jox. Mhm. signé ak ñoom ay convention yoo xam ne weeru dee ñu di la fay ay millions yu dul jeex waaye moo tax nga dégg monsieur le ministre Cheikh Omar Diagne di ko wax. ne mhm. ñii bañuñ ñu waaye alal ji ñu leen doon jox munuñu koo booleen noppi. Mhm. jël jox leen ay logement ci biir dakaar jox leen ay oto wutal eh, leen ay appartement jël alalu réew mi di leen ko jox ne leen seen rajo seeni seen loolu rek moo tax boo gisee am na rajo yoo xam ne ak télé yoo xam ne xeex Sonko moo ko taxoon ubbi. Mhm. presse bi presse écrit bi am na ci journaux yoo xam ne bi muy génn dañ ko sos ngir lan xeex Sonko. Mhm. ñu financé la ndax àggoon nañ ci ne moomoo boo nee xeex Sonko ñu financé la. Mhm. damaa bëgg ubbi rajo wala journal ñu financé la. dama recruter ay nër ñu financé la dama recruter ay mbër ñu financé la xeexal Sonko bu dee ne ngay wax lu bon wala saaga sax def ko. ñooñu nag ñoo doon taxaw démb ne dañuy manifester wu ngir lan seen xaalis bi nga xam ne ñoom ñoo lank bañ a fay réew mi ba réew mi suux. Mhm. réew mi nekk ci ndóol réew mi nekk ci jafe-jafe lañ doon teg Macky sàll nag ñu bëgg nañ ne ah président bi ñun kat démb ay jaam lañ woon. Mhm. ndax li Macky Sall def dafa leer laata muy dem keroog bi mu dajalee imam yi fii ci palais bi. Mhm. ak ñi ko doon wax naan ko gëmal dóor ak sëriñ. xam nga dama am lu ma leen waxoon fii ne leen. bés ni tey mbooleem ku teew ca pale ba ab jaam nga. naa feq nga bu bon bu bañ réew mi. ndax dañoo dajee ca pale ba mu gën leen ger ne leen Macky moom nee na damay dem. Mhm. waaye mën bala maa dem dinaa wan Sénégalais yi ne leen naafeq yaa ngi nii njubla yaa ngi nii ñi gëmul daraa ngi nii yéen Sénégalais yi nag bu ngeen falee seen régime bu bees bay boo ngeen jël paaka rendi ñii. Mhm. jox leen alal ñii mu yokk leen seeni salaire ñii mu nomee leen ci dernier jour yi la ko def ñooña ñooy naafeq ya teewoon ca pale ba génnee waat leen image yi da ngeen gis ña fa teewoon ñëpp loolu réew mi xam nañ ko fàttewuñ ko. Mhm. ñi bañ réew mi ñi nga xam ne ay njublang lañ ñoo ñu la Macky Sall defal loolu ñooñu nag ñii ci lañ bokkoon. ndax mm. dernière minute Macky Sall recevoir na leen. ne ne baal naa leen loo xam ne da ngeen ko amee loon alalu réew mi. Mm-hmm. yaakaar ne loolu dëgg la loolu moo tax tey fay lay doon alalu réew mi ku ko jël da nga koy fay. Mm-hmm. loolu moo tax tey ñuy jaboli si état bi jaboli si ja Bassirou Diomaye Faye jaboli si nit ñi mais kenn yëngu ko démb parce que nit ñi information yaa ëpp presse écrite bi yow moomoo. Mm-hmm. parce que Serigne Fallou Sall. auditeur la maanaam eh, dafa nekk ki nga xam ne day diglu de 313 euh, digital moo ma wax démb ci guddi ne ma. Mhm. li may am ci information ci 313 aw ma ko ci benn rajo ba benn télé. Mhm. ne ko damaa abonné wu lu wàcc ma ngi koy seetaan di ko diglu seen débat yëpp naa la jox numéro ngeen diggante. Mhm. mu nekkoon Côte d'Ivoire yàgg fa lool mi ngi tuuba ne ma information yi yi ngeen di joxe nee na ñoom dañ koy am daanaka léeg-léeg 24 heures wala ay yu kenn xamut. cinq heures de temps ñu doo ko gis yeneen gars yi di ko wax. Mhm. wala ñu koy titre yu mel moo tax ma ne la na ñu fay alalu réew mi. d'accord ba léegi ci wàllu presse boobee euh, nekk na daanaka débat boo xam ne depuis que njiit yu bees yi nekk fi ak léegi secoué wu na ba récemment Ousmane Sonko ci kàddu yëkkati woon doon wax ne euh, patron de presse yi nga xam ne dañuy. Euh, jël xaalis ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyloo te duñ ko verser fañ ko war a verser ba euh, daanaka jàpp sax ne ñooñu daal dañuy détourner alalu alalu alalu réew mi euh, ci loolu ñu gis semaine bi ñu génn ay avocat yu Ousmane Sonko daal di euh, génn xam la ne dinañu déposer ab plainte jëmale ci kenn ci presse bi di ku ñu wax euh, Madiambal Diagne ndax dañoo jàpp ne à chaque fois dafay yëkkati ay kàddu yoo xam ne daal ay propos injurieux la kàddu yu tegginewul di ko teg ci kaw ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mi nga xam ne moom moo di seen client te jàpp nañ ne daal teguwul ci dara benn fondement du critique ci wàllu gouvernance ak yeneen ak yeneen waaye attaque directe la yoo xam ne dañ koy yëkkati à chaque fois di ko teg euh, ci kaw kooku di Ousmane Sonko am ñu génn Euh, ñenn sax ne nañ ne warut waruñoo porter plante Ousmane Sonko warut a plante war na am yeneen préoccupation yu dul di dem di porter plainte kii di euh, ma jëmbal Diagne naka nga jàngatee cette affaire ak kàddu yi nga xamante ne à chaque fois moom ma Madiambal da koy yëkkati di ko teg ci kaw Ousmane Sonko. waaw xam nga turam sax daanaka di ko tudd amul solo muy ma Madiambal ndax bi ñuy tëj ay fajir yi. ak loolu sax bëggoon naa ko mooy bi ñuy tëj ay Walfadjri di leen mhm. sonal ak yeneen ak yeneen yu bëri. ñi ñi waaw ñii fu ñu nekkoon moomoo ñii bi ñuy tëj rajo yu bari di tëj tele yu bari di jàpp journaliste yu bari di dóor ci mbedd mi. Mhm. boobu manifester wuñ gërëwuñ dañ ne noonu la baaxee. Mhm. ñoom seen bopp moo tax ma ne lan ñoom ñëpp ay naafeq lañ. bi ñuy rey ak a tëj ñoom nee nañ loolu baax na ba keroog nee naa la sax. Euh, ba ba bi ñu joxe résultat yi sax da gis ñoo xam ne ci caaxaan lañ nekk. pour mhm. wan la ne la régime bi. Mhm. dafa xeex te faalewul presse bi lijjantiwu leen. ànd ko ak euh, ñu mel ni 313 digital ak euh, presse en ligne bi. Mhm. ba xeex bi metti ñi ànd ak ñële ba yàlla dogal ñu fal. bi ñuy falu presse bi bokk ci ñii di manifester bokkuñ ci ñi leen fal. dañ leen doon xeex waaw boo àndeek nit nag di ko di ko xeexal. mbër mi yanu ko ba ca kaw teg ko ci suuf da ngaa war a dem toogi te noppi mhm. ndekete yow ndekee ka ñu daaneel ñi mu wut a wax ndax Macky Sall lu muy wax mhm. buñ ko toppee moom du génn kaso parce que njublan yii ci dëkk bi yépp ci moom la kon ñi mu ngemboon bu fekkente ni ñoo am fitu di wax li ci kanam rawuli bët loolu moo tax démb ñu ci félicité bu baax wal Walfadjri mhm. parce que ñu ko jot a teg ci at yi ñu génn kenn xamul nu mu toll Sidi Lamine Niass waxoon na leen ko waaw gëm leen li nga xam ne mooy peuple bi su ngeen fi bàyyee askan wi askan wi danañ leen bàyyi. Mhm. di leen wax lu ñaaw dootuñ leen faale ba pare nekk ci leneen. Mhm. foofu nag lañu toll tey moo tax Walfadjri gàcce ngalaama démb waaw la voix de sans voix. Mhm. rajo askan bi. wane na ko démb Sidi Lamine wax ko jàkkaarloo Moustapha Diop ñu di ko gis. ak ñeneen ak ñeneen ñu bari. kon dama leen ne jërë ngeen jëf démb ñi ñi grève Sénégal yi faale wuñu leen parce que du ñoo leen di jox information. information Sénégal ñu ngi koy am sans ñoom. Euh, Madiambal day koo xam ne daa bokk ci noon yi gën a mag ci balaa balaa balaa ngay génn foofu parce que damay bañ point boobu rëcc ma yaa ngi wax gàcce ngaalaam wala fajiri laataa ñu ñëw si ma jambal yaa ngi wax gàcce ngaalaama Walfadjri waaye am na ñoo xam ne gisewuñ ko noonu ci biir presse bi ñoo xam ne jàpp nañ ne daal acte bi Walfadjri posé acte trahison la ba ci ki nga xam ne moom mooy njiit bu D-Média wala sax ma ne njiit bu gëm sa bopp di euh, Bougane Gueye euh, moom démb ci ab publication boo xam ne def na ko sur sa page euh, Facebook daanaka mën naa wax ne su ma exagéré wul sax dafa saaga waa Walfadjri ndax buy wax ne. cette entreprise funeste et odieuse d'un Premier ministre bavard appuyé par une race pitoyable de journalistes et chroniqueurs, collabos de groupes de presse charognards qui nonore par la mémoire de Sidi Lamine Niass, on connaît maintenant ces journalistes qui recevaient des transferts du juuti en quête de soutien dans la presse les masques sont tombés ce jour kaddu yooyu mu yëkkati teg ci kaw wal fajri mu mel ni sax euh, kaddu yu xaw a doy waar la daal ci ni mu leen qualifié jàpp ne ñoom euh, dañoo nekk ñoo xam ne ay journaliste lañ yoo xam ne Pastef wala Ousmane Sonko daf leen daan guerre ngir ñu leen di defendre que euh, ñoom daal gàcceel nañu mémoire ki nga xam ne moom moo di ndem si yàlla Sidi di Niass yàlla ko yàlla yërëm naka nga jànkatee kàddu yooyu ñu yëkkati tey teg ko ci kaw wal fajri. waaw loolu buggaan wax loolu amul parce que itam nag fàtte xaju fi daal Sidi Lamine li mu waxoon lenn la. wal fajiri te ci baat bi ñu koy bàyyi xel ak baatu alxuraan la ndax moom bu yëkkatee kàddu gi ne baatu wal fajiri rek ba boobaa ya kàddu gi nga yëkkat day dellu ci baat bi te baat bi baatu alxuraan la mhm. te saa yoo yëkkatee kàddu goo xamante ni bi euh, àndut ak war ma mu jëm ci alxuraan yàllaa lay dumal boppam mhm. kooku yàllaa lay sanctionné kooku jërul wax dalay toroxal bëccëgu ndara kàmb fii ci àdduna bi boo faatee mu lakk la yóbbu la safara ndax waxu yàlla la yàlla neen samay wax kenn du ko dendale boo koy def man may réagir wal fajiri wala yàlla da ngaa war a kay kon presse ba wala groupe de presse wala nangam. Mhm. waaye wal fajiri ñàkk xam. Sidy Lamine li mu dénkaane woon lii la Moustapha Diop la jàkkaarloo di wax ak ñeneen. ne mhm. leen dénk naa leen euh, euh, rajo bi. man mhm. sax damay toog léegi lu bari du may ñëw. fexe leen ba fa rek askan bi ñoom ñii di wax nii. mosu ñoo fa askan bi bi réew mi takk fa fa du ñëw askan bi. moo tax ñoom li ñuy wax dañ ne wax ju ñaaw jëmul fa mu jugee la la dëkk. dëkkul fa mu jëm. Mhm. li ñuy wax mu jëm fee ci ñoom la dëkk ñoom ni ñu nekkee ak ni ñu mel moom la ñuy wax jërul wax guddal dénk naa leen ko far leen ak askan wi ak peuple bi su ngeen juumee nag ba am feneen fu ngeen jaar bàyyi fi askan wi dem ñu di leen ger ngeen ànd ak gaay mm. su boobaa na ngeen xam ne ah askan wi askan wee leen gën a la leen tegal askan wi leen gën a jàng askan wi leen gën a xam nu mu demee ëpp leen information bul toog ci rajo ak télé rek yaakaar na yaa ëpp ñëpp information. Mm-hmm. saa yoo rek juum askan wi am na ñu toog fa ñu toog li ñu yor ci information yu ko. Mhm. ëpp la xam-xam toog nag gën laa dal loolu la leen dénkoon kon wax jooju moom day daal di dàqu jërul guddal beneen bi aussi mooy wal eh, Walfadjri mii ci at yi ñu génn. Mhm. xanaa daa fàtte ni nit ñi àggoon nañ ci ñooy cotiser sax di dajale seen i 1000 francs di ko def ci mhm. kees gi. bu ñuy tëj signalam un mois ak yeneen ak yeneen yu fi. Ah, direct yi mu doon def Makhtar saar ca tuubaa def na direct ñu jékki-jékki rek. coupé ko coupé ko muy wax yu am solo. Euh, Sénégalais yi dajale seen xaalis def ko ci kees gi jàppale ko. Mhm. kon lii muy wax defe naa loolu da nga koy wax ko ko fekkewul li yàggul di de daaw rek waaw xam nga ñaaree at ñett lii moom euh, taarix da koo bind. Mhm. parce que 2 mars 2021 ba 2024 loolu histoire da koy nettali musul am ci politique gu Sénégal ci histoire am. Mhm. ca jamono yi Mamadou Dia ba léegi li am fii musul am. bëccëgu dara kàmm ñuy fetal nit ñi di rey. Mhm. di jàpp di tëj nga takk brassard ñu jàpp tëj nga sol mbubu def sonko ñu tëj yii dafa dafa dafa jéggi dayoo moo tax histoire dina nettali doxalin gu ñaaw gi régime bi nekkee woon fii ba buftu bi di fay. Mhm. ndax yaa ngi dégg ñu lay nettali Senghor euh, du Dia euh, ñoom Lamine Guèye ku ca defoon lu rafet dañ koy wax mais ku ci ma a def lu ñaaw dañ koy nettali ba tey. Mhm. te yàgg na de kon nag lii nga xam ne matagul sax at. moo tax comme li wax nii waxu Sidy Lamine bi moo ko dàq moo tax. Walfadjri du ku ñuy guerre Walfadjri naka jekk dafa mas a frek askan bi wàcc sur le terrain. loolu taxoon Sidy Lamine du dund ay jafe-jafe. waaye ñoom ñii fi nekkoon kay ci weer yi ñu génn rek. sëñ bi loolu jëru guddal askan bi xam nañ réew mi. xam nañ ban presse moo koy liggéeyal. xam nañ ban presse moo moo moo nekk ci boppam ak ñan ñoo far askan bi ak ñi nga xam ne ñoom askan bi bu ñu leen doon tër rey Sénégal gépp ñu ne gongo. Mm-hmm. loolu réew loolu Macky Sall da ko réussir fi mu ne nii maanaam daa fexe ba wan ñu naa naafeq yi wan ñu ñi nga xam ne du ñuy journaliste wan ñu ñi muy añandool ñi muy ndëkkandool ak ñu ñëw naan ko fexeel ba Ousmane Sonko mi élection yi ñu jëm ba mu ci bokk ndax bu ci bokkee bu ñoom bu ñu jàllee ñun dootuñ fi dootuñ dootuñ am jàmm lépp leer na réew mi des na ko jubal des na dindi tappale ak caay-caay gi ak sàcc gi ak njaay gi ñu nekkoon moo tax wax jooju jërul gudd. parce que moom waxu si moo ko leeral. bu avocat yu Ousmane Sonko ci Madiambal Diagne waaw moom laa wax ne la